dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaaru yu abu te leen ngir dara bañ leen raw wàllum xibaar ba tey rek cour de comptes nag daal dina fësal lu toll ci fanweer ak fanweeri euh, euh, li di rapport yu yees yoo xamante ne fësal nañ ko ginnaaw ñeent fukk ak juróomi rapport yi nga xamante ne euh, publié woon nañ ko jotaat nañu nag ay fan yu weesu cour des comptes daal dina dellu siwaat rek nag daal di publier ginnaaw seeni vérification yu takku yi nga xamante ne rek nag jot nañ ko rendre niki àjjuma ji tey ji fan ci weeru mai fanweeri rapport yu yees yoo xamante ne document yi nag daanaka sax nag dafa explosif doy na waar ndax ci la ca bootu ci ay cas yu wuute ah, bari na lool ci gestion commune bu Sénégal ñi nga xam ne rek dañ doon luubal lu Sénégal gi jamono mbas mi ak la ca àddu ah, fanweer ci ay rapport jotaati nañ ko fësal a ah, fàttali nag nguur gu bees bi di Bassirou Diomaye fay moom nag dafa joxe woon dogal ci waa Cour des comptes ñu fësal lépp lu jëm ci amal contrôle ba noppi fas yéene fësal nag rapport yi ak képp koo xamante ne rek nag jot eh, nañ ko dooree ko ca deux mille vingt et un daa rek vingt ba deux mille wala sax deux mille dix neuf ba deux mille vingt et un bi ñu nekk deux mille vingt quatre bi ñu nekk loolu dafay findee at yi nga xamante ni ci moom lañ weesu daal dañ ko fësal képp koo xamante ne nag laale nga ci rek boo muyut nag yat dina dal sa kaw eh, jamono jooju rek nag wàllum lu bal sax nag lu nu mel ak lii di nag xaalis maanaam wàllum fii ci Sénégal di jur ab coow bari na lool nag ci gox goxaat yi nga xamante ni saa su nekk askano yaa ngay xeex nag ak ña nga xamante ñoo di maire yi nekk ci commune yi parce que seetlu bi daf di benn ñoom maire yi dañuy def la leen saf nag duñu déglu askan wi comme dañ leen fa teg ñoom wa di ko jaay ñenn ñu am daraja te askan wi duñu mën dara waaye nag ak nguuru Bassirou Diomaye Faye yaakaar naa ne rek dina jaar ci yoon ndaxte la koy la mu njëkk a jóg dem saytu ko rek mooy si ca mbuurkat askan wi nag am nañ ci moom yaakaar te jàpp nañu daal ne bu ne nii sénégalais bu ne dina mën a am dëkkuwaay même bu nekkul ndakaar sax mu mën ko am fa nga xamante ni euh, fa la bëgg moo xam ci yenn régions yi ndaxte suuf jamono ji euh, doom na doon lu góor waaye tamit ñu ko gën a seeral di ñi nga xam ne ñoo fa dëkkee euh, wala commune bi di ko sax-saxe seeni biir te keneen ku ko bëgg nag mu daal di la ci indil ay jafe yoo xamante ni jiggi na dayoo Aïssatou Diop Fall daal dina ina tontu ñii di waa koreet ginnaaw kàddu yu ñaaw yi nga xamante ne rek jot na ko yëkkati ba koreet nag di kuréel gi saytu lépp lu jëm ci étude ak déontologie jamono ji ci journaliste yi moom ay Diop Fall nee na rek nag jugé nañ ko nu mu gën a gaawee sax waaye mënoon nañu teewlu ba xam rek lan moo tax mu yëkkati yi li kàddu moom Aïssatou Diop Fall nag di xam ne rek ne ci rapport bi nga xam bala sax nag ci communiqué bi nga xamante ne waa Corée daal dinañ ko fësal ba noppi di ci ñaawlu sax nag ci benn vidéo boo xamante ne daal a jot na siiw nag ci réseaux sociaux yi mu yëkkati ay kàddu yu ñaaw sax ci émission boobee sax na moom mi nga xamante ne moom moo ko jiite ci organe bu naan euh, Prodaf noonu ne sax nag émission bi sax nag ci altine bi laa moom boobi ba tey lam fa wax nag mu ñaaw lool waa Corée nag fas yéene ko teg ay daan wala sax nag àtte ko ci kanamu euh, ñii di léppeen moom ba tey nag tontu na rek ne dañ ko teel daal di jugé waroon nañ ko déglu bu baax a baax waaye nag jàpp na rek ne ñi nga xam ne dañoo euh, dañoo jaloux ak ñoom dañuy yàgg rek di mer ndaxte defuñ leen li war a tax rek ñu àddu lu ni mel jamono jooje ba tey ci mbirum Aïssatou Diop Fall moom ak soxna si rek nag naan ger sax laa guerre diggante moom la ak xal bu jigéen bi ñu naan Salma ak i ñoñam euh, di xeex moo daal di am diggante journaliste yi ginnaaw nag vol bu base ak presse bi jamono ji sax ay defante rek moo fi am diggante nag journaliste yu jigéen yi ancien employé bu wal fa Walfadjri la woon Aïssatou Diop Fall waaye tamit nekkaat journaliste ci même maison de presse Salma Ibrahima Fall jot na promettre rek ne euh, boo mooy dina def lu métti ki nga xamante ne mooy Aïssatou Diop Fall gannaaw loolee tamit moom euh, première nominé bi nga xamante ni jotoon nañ ko amal ci ay kàddu mu yëkkati jëmal ko ci Salma Ibrahima euh, ci ñenn ci plateau yi jot na si taxe nag lu jëm ci journaliste yu bon ñi nga xamante ne sax nag amuñu benn niveau loolee sax nekk tontu goo xamante ne rédactrice bu public euh, bi jot na rek tàddewul benn yoon di ADF nag comme niñ ko daal di woowee ci la di bett rek fas yéene caa indi tontu wàllum divorce tamit jot nañ ko wax lu jëm ci wàllum professionnel ak jeune journaliste yi rawatina rek. rek nag leneen li nga xamante ne ñoom ancien collaborateur yi ku mel ni Sanjogu euh, ak technicien yi nekk nag ca Walf TV di juuf nag jot na ca addu ak ka nga xamante ne rek ñoo jot a jaarale ko nag ci seen euh, même euh, tribune bi wàllum xibaar daal dina bokk rek nag bu loolu weesoo ki nga xamante ne rek moo di Fadilou Keita nag fas yéene ko dalal ci fonction bu bees bi mu fas yéene jiite caisse de dépôt de consignation du directeur général ancien directeur général bu caisse de dépôt de consignation nag di Cheikh Issa Sall jot na rek jébbal lenge yi ki nga xamante rek moo ko fa wutu di Fadilou Keita ni ki tey ci àjjuma ji ci cérémonie de passation de service bi nga xamante ni ñu ko doon amal ñu fal ko nag ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril jëm rek nag ci réunion hebdomadaire bi nga xamante ni euh, conseil des ministres ñu ngi ko doon amal ci noone mu fas yéene manager rek lu jëm ci gestion financière ak lépp la ci àddu jot nañ ko dalal nag ci bureau bu bees moom directeur général wàcc ci terrain bi ngir gën a miin waaye tamit gën a mën a wëyal liggéey bi ñu leen di fàttali Fadilou Keita mile mooy doom euh, ci kii di euh, Nafi ngoom Keita nekk ku njëkk a jiite nag OFNAC di kër gi di xeex lépp lu jëm ci wàllum gëk corruption ak lu jëm rek nag ci wàllum nag luubal nu nu mel ñu loole sax nag moom jotoon nañ ko sax nag employé foofee CDDC foofee sax nag daanaka jotoon na ti ay lenge sax di fa liggéey ñu créé ko ca atum 2006 nag ci cadre wàllum politique générale ak développement économie fii ci Sénégal mu disposé nag benn statut spécial boo xamante ni mën na jiite mission bi lu jëm ci wàllum financement ak logement kon naka jamono ji moom Fadilou Keita jébal nañ ko. Lengueye mu fas yéene te amal liggéey boo xamante ne rek Sénégal yi daañu gis seeni bopp wala xibaar daal dina bokk ci Guy Marius Sagna moom mi nga xamante ne jamono ji mooy jël défense nag ci liggéeykat yi nga xamante ne jamono ji jafe-jafe jotoon na ko xamle rek ci yi ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi ñu licencié ak ay jigéen yi nga xam ne dañ nekk en état de grossesse dañoo wan lor te ñoom ñooñu sax nag dañ leen a dàq Guy Marius Sagna di député bi nga xamante ne dafi nekk ngir nag saafara loolee moom moo fi nekkal nag jigéen yooyee ak ñi nga xam ne dañ leen licencié ci seen bërëbu liggéeykaay te defuñu leen congé de maternité bi nga xamante ne war nañ ko jox soxna yi sax dañ ko koy bañ euh, parlementaire bi Guy Marius Sagna di sàkku ci wàllu mutuelle de santé bu agent de l'état nag ñu xoolaat bu baax mbir mi naka la ñu dàqee nit ndaxte ñu bari ci employé dàq nañ leen ca ba ñu nekk surtout soxna yi bu ñu nekkee jigéen yo wann lool rek nag ñu bari ci ñoom dañ di dàq fa ñuy liggéeyee ñu ngi sàkku nag ci nu mu gën a gaawee nag ñu seetaat mbir mi ndaxte nag mi ba yàlla def mu nekk en état de grossesse administration bi war nañ xam am yërmande te xam ne euh, ëmb du loo xamante ne yomb na waaye nag ñu bari ci xale yu jigéen ñi moo tax sax nag ñu faral di def planning ndaxte jàpp nañ ne euh, bu ñu nekkee jigéen yu wérul rek mën nañu ñàkk seeni liggéey loole nag la Guy Marius Sagna taxaw temm jamono ji bëgg nguur gi fi nekk ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllum liggéey nag ñu dal di dundee li nu mel activiste bi sax nag di ne loolu sax dafay rusool dafay nurool benn acharnement loolee du dëgg du yoon nit kenn waru ko licencier dàq ko parce que dafa nekk en état de grossesse état bu Sénégal nag bëgg na mul réagir ci ci nu mu gën a gaawee ndaxte nag jot nañ interpellé gouvernement bi ci wàllum licenciement jigéen nu ñu leen dàqee waaye tamit ba noppi congé maternité bi nga xamante ne war nañ leen ko jox ñu bari ci ñoom euh, dañ leen a bañ bokk na ci liggéeykat yi nekk ci Total Énergie soxna yooyu sax daanaka duñ leen may congé rax ci doole ki ci ëmb sax boo moytu dañ day dàq ca liggéey ba Guy Marius Sagna nag jot na te bëgg na daal nag lépp lu jëm ci lu nu mel mu jël ci ay matuwaay bokk na tamit ci benn euh, entreprise bu mel ni UNO boobee nga xamante ne bi société la boo xam ne daal daanaka ñooy gérer autoroute à bi Ila Touba ñooñu ñëpp di nekk ay jigéen ñoo xam ne dañ leen a dàkk li waral bokk na ci congé maternité waaye tamit ba ñu nekkee jigéen ñi wan lor wëndalër euh, député Guy Marius Sagna nag mi ngi manifester nag ci jàppandal ñooñee di ay liggéeykat rawatina jigéen yooyu nga xam ne dañ leen dàq ginaaw ba ñu nekkee en état de grossesse te loolu di dëgg du yoon bëgg na nag Bassirou Diomaye Faye ak ki nga xam ne rek mooy Ousmane Sonko ñu àddu ci mbir mi ndaxte dafa yàgg lool di am fii ci Sénégal te dafa jot nag ñu daal di ko saafara.